messieurs les ministres, messieurs les collaborateur des ministres, chers collègues, Monsieur le Président, nous vous félicitons car tous les deux hommes d'État hier pour votre acte à la maison de feu Léopold Sédar Senghor wolof Njaay dafa ne nganuk yamb ak yamb la Ablaye di jox na la yamb nga lem nga delloo ko lem rendre na la hommage yooyu rendre nga ko hommage parce que da ngeen ne yàgg ku nekk wax ngeen seen ancienneté xam ngeen fi ngeen jaar waxante ngeen mu rafet li ma gën a marqué nag ci affaire bi mooy bi mu nee sama kër laay def cocktail nga ne da dem je vous remercie monsieur le président bëggoon naa la mais yokku na nag sama góor gu baax googu. monsieur le prés monsieur le président damay gërëm monsieur le ministre Sarr nga sant yar bi ak teggin bi ah wolof Njaay nag dafa ne tombe moo waral ay gaaf ñëw nga Saalum ñëw yàlla na feneen ak feneen ñëw. Ablaye jàll maa ngi lay nuyu yow su ma la tudd sax xam nga sama xarit nga dañoo yàgg monsieur le ministre. dama doon ñaan est-ce que ça ne serait pas possible parce que à partir d'une heure du matin une mère de famille avec ses enfants qui quitte l'aéroport Blaise Diagne pour rallier la région de Dakar la région de Dakar est-ce que vous avez prévu prévu est-ce que xalaatu leen ni à partir d'une heure du matin on doit atterrir à Léopold Sédar Senghor pour éviter les agrégas les les agressions et en même temps les pannes monsieur le ministre les billets d'avion son chers benn père de famille qui se déplace avec sa femme et ses cinq enfants te ñun amuñu lu suñ doom nag ñu ngi extérieur est-ce que amul mesure yu ngeen waree jël yoo xam ne yii su ngeen ko jëlee au moins boog dinañ am forfait bu ñu leen wàññil pour xale yi monsieur le ministre damaa wax ni est-ce que amul moyen aussi boo xam ne mën nañ ko pratiquer pour éviter des transits aux aux femmes qui amènent les enfants au Sénégal xam nga yor juróomi doom wàcc fii defaat fii wàcc fii dafa metti est-ce que amul leen moyen pour loolu. am nañu fi wax affaire vacances foog naa ku mënta dem mbuur doo dem bitim réew kon téere day digle sangaay te du sangu monsieur le ministre j'ai encore une question à vous poser paraît-il que il y a des employés de l'ancien SHS qui étaient reconduits à 2AS et, en, et dont leur contrat est arrêté qu'en il monsieur le ministre il faut penser à la sécurité de nos touristes pour l'image du pays monsieur le ministre dama am na ñu fi wax ni Macky Sall ci sept ans yi li mu fi def kenn dootu ko fi def damay dëggal loolu ndax fa mu jaar la dañuy rendre un hommage mérité à son au président Abdoulaye Wade de 87 à mille mu jàngal na ko politique de mille à 2008 jàngal na ko comment gérer un état def na ko ministre de de l'énergie def na ko ministre de l'intérieur ministre des collectivités locales def na ko premier ministre def na ko premier ministre def na ko président assemblée nationale chef du gouvernement foofu ko fa jaar soo demee ba 2012 nga jëlum réew lañ la jàngal la sa sëriñ jàngal war nga koo mokkal monsieur le monsieur le ministre monsieur le ministre dégg naa xeexuñ ko moo xeex boppam ku ku toroxal sa baay génne sa taaw yaa yaa tas sa kër ma ne ku toroxal sa baay sa doom sa baay génn sa taaw yaa ko lii dama ne xeexuñu ko dégg naa aussi monsieur le ministre monsieur le président yow laa koy wax sax ñu naan karawaas gi dil caw di caw di caw ba ñu nekk à 4000 familles de diminuées de pauvreté dans ce pays ngeen wëlbati kuy caw bëgg yokk électricité xanaa yéen da ngeen a bëgg ñu dee na dindi karawaas gi nag tey naxe tey raay maa ngi leen di gërëm di leen sant et pardon monsieur le ministre y a la nationale 3 bi départ Dakar jëm Lompoul il faut que ñu viabiliser ko ndax ñu mën am ay ndax ñu mën a am ay touristes yu fi ñëw maa ngi leen di gërëm di la sant monsieur le président Moustapha Niass maa ngi lay rendre hommage mérité li nga def démb vraiment dafa rafet Sénégal yi yëpp de bonne foi dañ koy rafetlu maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam